samay dëgg la samay kilifa ñëw nañ fi teewaaleel mboolem njabootu Cheikhul Xaaji Malick ak muhadratul malikiya yëpp fa tabaarakallahu ki fi di Serigne Pape Malick si ca bés bu njëkk ba bésu ñaareel ba xalifa bi Seydi Babacar Mouhamadin il Mansour al xalifatul am li tariqati tijaaniya ànd ak njaboot gi yëpp ak i rakkam ñëw. fekk na nag ñun booba ñu ngi ci beneen mission fa tabaarakallah waaye ñu toog tey ba ñetteelu fan bi ci kóllëre goo xamante ni doxoon na ak suñu kilifa gu baax kooku di Cheikh Sidil Muxtaar waaye du ci ñun ci mbaaxam la mu soppal ñu boppam bëggal ñu boppam taxawul ñu boppam jaadu na ñu ñëw gisanteeg Serigne Moustapha di xalifaam di taawam ak njaboot gi topp ci moom yëpp jotal suñu njaal ci kilifa gi ñaanal ko yàlla tamit yàlla na yàlla nangu ñaan yi waaye ñëw ba fii tamit ci kër xalifa bi di suñu kilifa di suñu sëriñ di suñu soppe di suñu lépp di sëriñ Mouhamadul Muntaqa Bachiru bu Cheikhul Xadim te wuutu ko fi tey wuutu fi ay magam wuutu fi ay wayjuram waaye wuutu fi maamam suñu maam Cheikhul Xadim radiyallahu anhu muy kuutaayu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ah ñu ñëw ngir masawu ko en tant njaboot waaye ñëw tamit. feddliwaat suñu kóllëre ak doonu njaboot ci wàll yëpp incha allahu taala seedeel ko ko seedeel ko suñu boroom ñaanal ko yàlla ñaanalul ko yàlla mission bii nga xamante ni tey duma ni tey lay soog a wàcc ci moom waaye ci la ma sa nekk ba suñu bésu tey lépp loo xamante ni ab sumb la bu fi mag ñi bàyyi maam yi bàyyi ko fi Cheikh Sidil Muxtaar mi wàcc liggéey tey bàyyi ko fi ak moom itam sumb yi nga xamante ni sumb na ko masul dañ di ko sumb lépp yàlla na ko àggale ci kaw dund ak fekke ak tal ak kaaraange ba yàlla defal ko ci lu gën a gawe njortam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw umma islaamiya yëpp ñu ngi leen di jaale di leen masawu ndax ñun ñoo ko bokk wax naa sànq Serigne mustafa ne ko Cheikh Sidil Muxtaar képp ku bëgg lu baax te jé te baax mën nga wéet jaale ko sa bopp ndax moom amee la amee kenn ñun ñoo ko ameel salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.